yoneen ba xej ji mbóot ya xëy dëtam ko di leen safoo am mbégte ñëw teewaat fi ngir dablu seen bànneex de tey ñu doj fi rajaxe nañ xayrata mabbal muski xar sura ñaari xaaj ba xëy ko jàggi keroog sëriñ seexu la démmu bamba kalal kalal deram ci géej ga tey nongamba ka woon tamaanu sax ci dëddu sëriñ masamba kenn ni ni'mal abdu ci takkusaan daarul xadiim fii lay amee kën soob mu assasaa ko botta cay deme taxañ ca ak dundam ak yi jaar-jaaram aku ganeem diggante mag Sayxul Xadiim ci làmmiñu wolof faram ko facc ci gan ñi teew fii def ko pàcc-pàcc Abdul Ahad tofal ca Sayxi Mbakke ak Abdu Qaadir bu sa mbër ya jogi doji xolum yu jël nuyoo ma tàmbali toj buy wi ndax njariñ la daal di jolli tu as parole Cheikh Mbakke andi waaw asalaam mooy baat ba buur ba tax jox yoneen ba tax ma jël ko tey daal ko wax waaw asalaam mooy baat ba buur ba tax ma jox yoneen ba tax ma jël ko tey daal ko wax ahlan tafaddal alxakim si abd nuyoob salaam ma jël ko tas ci géew bi tanaan tafaddalu ci seen jotaay bi ci ëtt sin masamba lañ di pooñu ànd ak tv aafiya tey mu yanju ma jox la microphone bi yab na faadal di la fayaat tey nuyu waat ku teew fi am mbégte teew ci bii jotaay wàccee fi ndaw laa lu bàyyi jikoo ci kën so aafiya ma soqi ko ci biir mu assas aafiya jaajëf ci seen nuyoo bi yàlla na buur bi barkeel ko muy ngërëm nu saaw di jeppi kuy Cheikh Massamba Kanni laaj la bu laaj Cheikh Mbacke moo koy tontu daaj ko cib daaj bismillahi rahmaani rahim sëriñ ak dundam da di misaal ba tax ñu xëy di fàttalee ka def di yàlla feeñam ga fee ca naawel ay kiintaani keroog la waa saalu ñu xëy kontaani foofu la feeñ ci xas-xasin jant ba xëy leeral ya ba ak di siin fa ngaay baayam ba mooy sëriñ bu soobe kay nijaay ci say xunaa ahmadu bamba gën maam soxna kànni mbàkke mooy ndeyam ja imaame Cheikh Abdou May imam ja yàllaa ko tànn ci njaboot yu ñëpp bi mbàkkeeg bu soobee ñoom la boole raw na leen sambam ja mooy sëriñ ma sàmba anta ceeb moom lañ tuddee ko ndax jikkoom da doon lu jub te mag ñi ñoom lañ daa faral di tudde doom ka xamal def ko njukkal mu gën jël jikkoom sëriñ ma sàmba ak sëriñ bi mbokk lañ xarit ga ak soppante mag ña seede nañ ci néegu nay sëriñ ma sàmma mbokk la ci néegu bay ba tey de mbokk bamba la ndax soxna kandi doomi xastu mbàkke la te xastu mbàkke doomi balla xaysa la te balla xaysa mii de mooy bàyyi ma mar anta ma jur sëriñ bi nañ na far ba tey dafay doomi nijaay ci wàllu baay ndax ahmadoog mareema bokk benn baay ci lañ xamee ni sëñ Masamba ak sëriñ Bamba dañuy bokk yu bokk benn ren ku nekk xam na doomi soxna lay sagam mu dégg diine wattu wax ja ci dënnam ba tax sëriñ ma sàmba fay ci ak ndawam ci géeju diine root fa ay nabi xikam jàngam ba moo ko dal ci at yu néew te teel baayam ba moo ko jël dalal mu farlu lool mu sax fa diir mu jël ko jox sëriñ ma sàmba faati yor ko diir bu néew bi bay sasam ci la ko jox kuñ naa Momar Yaasin fa mbaa la fekke leen ndabam ca dëkk ba mu seede it ak mokkalam ci diir bu néew ci waxtu woowa ay atam doonoon lu néew ci la ko waajuram woo woolu tàmbalil ko téere yooyu xam-xam ya daal di koy wéyal jébbal ko mag ja sayxi mbàkke may faqih mu def ci moom xam-xam bu law ne dul safi ba mu fa jógee la sëñ bu soo mi jël ko jox ko sëriñ bu mag ba teewul jàngam di dox ba mu fa jógee la sëñ bi bu soo mi jël ko jox sëriñ bu mag ba teewul it njàngam di dox nee nañ sëriñ bu mag bi sax daana ko sa man yéemu naa ku mas ko seet ba dina sax càlleen la sëriñ bu mag bi far yebal ko jox ko waaj waaja mooru gàllaayu jaw mu dal fa sax jeexal na fay téere te làq fan wax nañ xàllin de foofu la làq ay mbiram door a ci sëñ bi ba jotee ndigal mu bàyyi koog sëriñ bu soobe ngir cofeel kii mooy sëriñ Masamba Kan ni moo waral ñu xëy dajee di fàttale ki def di yàlla kii mooy sëriñ Massamba Kanni moo waral ñu xëy di dajee di fàttale ki def di yàlla jaajëf ci way wi kon ma jox Cheikh Abdou wax ñu moo Cheikh Bamba fan la juddoo lu ñu fekk ak fan sëriñ bi ak sëñ fan la tegoon ndongam bi sëriñ Massamba Kanni ak sëriñ bi yàlla dogal seenub diggante tàbbi sëriñ Massamba Kanni ak sëriñ bi yàlla dogal seenu diggante tàbbi ci wàllu mbokk bàmba doomi bàjjan la masamba doon doomi nijaay mbokkam la yàlla ko tànn muy murit bu dëggu jébbal ko seex ahmadu masti sikk fonk gu wér moo waraloon ba bàmba jekki na bis di laaj sëriñ masamba kaala mu doon ak may mu jël ko ràngo yendoo ku dikk mu wan ko lii ku am ko seyxul masamba ci ndawam la topp sëriñ bi tax na ci magam la tépp fonkoon sëriñ bi sës ko lool déggal ko moo waraloon ba Seydi Ibra seedeel ko ndokk ba Seex Mbasamba doone ab xale moo tee mu ciix nga ne li bàmbay dajale bu doon kam ak ab lar du foon Seex Bàmba ndax moo jiitu mag ña tonni may ya daldi jax jàng ne ar ci fànn yépp yaru ne na tax ku gis ko sopp Seex Bàmba fu masaana toog di wax arab faw mu teew bu teewul it wolof laraab darul xadim sëñ bee mu sanc boole ko ak téeméeri ndonga teg ci juróom yi egg ci juróom yi egg ñaar fukk ci boroomi kër ngir xam ko doy loo ko itam kii moo di mbër nawlem ya naw ko ci nawaal yaatu jàppoon ko ngir yaatoon na kom jannaatu seexul masamba dem na gisuñ ko ci gii la maas ko def defuñ ko daa mase dem ci sëñ bu mag bi wax ko laa bëgg mooy li seex bi am ma am ko as ndiir la sëñ bu mag bi daldi tontu dëppoo dëppoo borom bi mësti gàntu as ndiir la sëñ bu mag bi daldi tontu dëppoo na maag borom bi mësti gàntu teewaay bi tey diglul ma wax sabab bi bàmba la woon sëriñ ma sëriñ seex bi teewaay bi tey diglul ma wax sabab bi bàmba la woon sëriñ masamba seex bi bamba ko ci guddi gàmmu wan ko yeneen ba yàlla na dolli yàlla na yàlla dolli may ko bi duuni mooy nelaw ci yeewu teem la janool yeneen ba ciy gëtam sangam la ku sëñ bi ku doon fi war ku sëñ bi woolu dikkal sëriñ Masamba Kan wa jàppal ku bëgg a gis ku sëñ bi fonku dikkal sëriñ Masamba moo ngi jox ko sa xol ku yàlla may tawfiixu bëgg sëñ bi mu dee sa xol ñëwal ci sëñ Masamba ba nee ñu sax àppam jotul mu faatu ngir ab xolam daadee ci seen duyaatu ba nee ñu sax àppam jotul mu faatu bëggoon sëriñ beeree xolam bu yaatu ku gaynde doon sa baay nga doon ku ngande du bette ndax sa baay du rer nga fande diggante sëñ Masamba ak sëriñ bi ak géej la góog ku nur ca lab ga tàbbi ak géej la góog ku nur ca lab ga tàbbi leer na sëriñ Cheikh Abdou wóor na yàlla ndokkeel la war na kon ma jaajëfal la jox abdulaat mu daldi wax ci ay jëfam ak taxawaay yum taxawoon ci ak ndaw madaas xarii mag tag bi mbëri ya daa setal suufas borom mbindéef yi daldi leen wayal madaas mag tag bi mbëri ya setal suufas borom mbindéef yi daldi leen wayal ñataaw woon jàmbaare sell ay doxiin dëgër dëxër ci dëgg duñ toogi ci neen tooyuñ te fuuyuñ seenu mbaa sax ñu jéem lu dul ngërëm ci yàlla ak Cheikh al Xadim fàkkoo dëkk ngir di jàngalee ka yar lañ daa xëyee ka gontu ak di dàq lor jeexoon ci suñ Tuubaa ba xàmmeewuñ farox baalu lewet te koy gërëm jël ak marax booy wër gu boole jikko yooya tey dajal sëriñ ma sàmba kenn boo gisee moyal ma wax la tuut ci ay jëfam ak i jikkoom ngir loo ca wax waxit du tax nga daj dayoom te doy na sëkk rek ñu wax ne att bii moo gor ko buum saay-saay yewoon ci pàkk bi gannaaw ba Sëriñ Tuubaa joxoon ko ci ndigal ngir moom ndigal mooy tax mu jëf mooy tax mu dal Masamba kaay ta dem ca peggi Tuubaa sanc fa maa warul la suuna boobaa lay dolli firnde cig wayam akub dëgër fu mu nekk ak sëriñ bi sampoon na fa kër ci yéen Jolof njaareem itam amoon na fa Tuubaa ca wenti wit gedeet xàlloon na fa ku bëri woon suuf la ci réew mi gëstul laakin na moom daawu ko lim baa muy dajal mësula xam xemmeem ci mbiri àddina du xante wu lu dul ridaa rabbina lu yàlla xëy dogal mu gëm ko tey gërëm daa mel na kon tawxiidu moo naanoon doxam def nag xasiida duppe laa ilaha illa al ilahu yaa lahu min jaaha lewet di kan fóore bu géttil téere te sori ab gis-gis ca mbir ya piire yaa juuda li cheikh Masamba Kanni يعطي المساكين بغير من وهو المغمس بلج الشوق لسيخه القديم ذات الفوق yàlla nañu buur jariñ ci dégg ak topp te def suñu bëgg di bàmba képp kon sant nañ ko teew fi wax la jaajëf di ñaan borom bi xëy jagan suñ gile jëf te sant ñi ngi ko féqaloon ba lépp mat maamun tofal ca abdu qadir abdulat